gën a yaatoo li gën a fas yéene kaay yi ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñetti date yu ñu war a lijjanti ci réew mi ñoo daje ci wenn weer président Macky Sall akub datam conseil constitutionnel akub datam ñaari date yooyee fekk beneenub date mu di tàndarma ji ñu war di ndogoo ci weeru koor gi l'observateur nañu Macky jàpp na date ngir élection présidentielle ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars gi ñu nekk mooy date bi président de la joxe ngir ñu amal ci élection yi fa mu jaar ba jàpp le constitution bi munoo des ci bopp réew mi lu weesu le avril ndax dafay xëtt constitution bi journal bi nañu ci la Macky Sall wooloo Ismaïla Madior Fall Antoine Diome maître Oumar Youm ak maître Sidiki Kaba ngir waxtaan ci ak ñoom ñu ne nañu def élection yi dimanche fanweeri fan ak benn ci weeru mars ginnaaw bi ci la leen président Macky ne du mën a nekk ndax dafay tombanteeg feetu pag gi ci la ñu nekkoon nañu def élection présidentielle yi mars 2024 date mu jàpp ànd ak ci date bu bees bi mu jàpp journal Les Échos ñuy wax ne bu ñu wotee le 24 mars day fekk ñu nekk ci digg weeru koor gi nekk ci biir karam gi dolli na ci dañuy wax ne Sadio ca conseil constitutionnel ñu imposé seen doole bu weesoo fukki candidat ak juróom-ñeent yi ñu reteniroon beneenu candidat du ca tege bu ñu weesoo le avril ba mandat président Macky jeex Amadou Mame Diop président assemblée nationale muy jiite réew mooy game over bés bi la jour nañu ñoom waa conseil constitutionnel bi président Macky laajee lu ñu xalaat ci conclusion yi tukkee ci dialogue national bi sage fa ñu taxawoon fa la taxaw mu di organiser woote yi laata sa mandat di jeex te bu sa mandat jeexee le 2 avril nga buub say kaake dem mars gi président Macky Sall jàpp ngir élection présidentielle yéen bi nee nañu waa conseil constitutionnel nee nañu ko yaa ko teree neex xamal nañu ne candidat yi point actu moom la gis mi ngi wax ne conseil constitutionnel amul dellu na ginnaaw ginnaaw pression bu juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel réew mi quotidien gis ne pëccëxoo gi amoon sage dakkal nañu ko lii quotidien ne ko au contraire ñoom sage kay li ñu def sabotage la sabotage la am déet vox populi moom li mu gis mooy juróom-ñaari sage ak président Macky Sall nañu lépp libération di ko dëggal ci xëta njëkk ba diñu wax ne mars bu na ne jël waa conseil constitutionnel wax waaye élection yi 24 mars koy def les éco nañu dogal yi Macky Sall jël yamul foofu ne dafa wàccee démb Amadou Ba mi ne woon premier ministre fal maître Sidiki Kaba mu wutu ko journal bi mi ngi ñuy baaxeet ngërëm li ko Amadou Ba gërëm démb ba tegal ko ci ne dinaa dem ba jeex ci campagne bi ngir ñu gàñe woote yi l'observateur dellu ak ñun ci baax ak baax baax yi ñu doon waxalante démb ñoom ñaar ca ndajem conseil des ministres soleil national nañu àllarba ju bari jalt jalt la ñu dund démb ci réew mi démb la conseil constitutionnel rejeté conclusion yi ñu tënkee woon ci dialogue national bi démb la président Macky Sall jàpp data élection yi démb la président tas gouvernement bi teggi Amadou Ba mi ko jiite woon teg fi maître Sidiki Kaba démb it ci la assemblée nationale adopté loi d'amnistie gi vox ñeent fukki député ak ñeent ñoo woote l'observateur nañu cay kon coowal terroriste yeeg bakkan yi faatu woon ci réew mi ak yi ñu fi yàqoon léegi furas dali xëddeen lépp la ñuy fàtte journal Tribune nañu ku fajoro di jooy yaa xam ki nga deele loi d'amnistie gi ñu wote démb ci assemblée nationale Macky Sall mi ko fi indi journal Tribune nee nañu dara taxul mu def ko lu dul bëgg a protéger ay jege ñaaleem laata muy dem journal bi bind ci xëtamu njëkk ne juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom benn faatu nañu ci réew mi diggante 2021 ba 2024 Macky Sall faase na lépp jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, laataa ñuy tàggoo rek euh, Daouda Mine ñi ngi ci.